asalaamaaleykum ñu ngi nuyu bépp auditeur u Rewmi FM ñi nga xamante ni saa su nekk ñooy ànd euh, rajo bi di Rewmi FM Dakar quatre-vingt-dix-sept euh, point cinq rawatina seen émission sociale toute la ville en parle samedi bu jot euh, dix heures jàpp onze heures ngeen ci ànd ak Ndeye Comba Moreau tey ji seen émission sociale toute la ville en parle dalal ki nga xamante ni moom mooy Boubacar Seye Boubacar Seye nekk président bu ONG Horizon Sans Frontières nekk tamit président bu mouvement tabaxaat Sénégal Sénégal ak waa jaspora ñu fas yéene waxtaane jafe-jafe yi nga xamante ni sénégal yi nekk ci diaspora bi ñi ngi koy jànkonteel élection législative yu juillet yi nga xamante ni Euh, ci la ñu daal di jëm euh, ki lee di Boubacar Seye fas yéene Seye bokk ngir euh, nekk député diaspora ak moom fan la bëgg a féete carrément ñi nga xamante ni moom mooy sénégalais de la diaspora ba bëgg a nekk député ak yeneen i ponk yoo xamante ni dina soxal actualité bi kon daañu ko waxtaanee tey ji ak ki lee di Boubacar Seye ñu koy nuyu di ko dalal jàmm. remercier ci invitation bi di nuyu waa réew mi FM yëpp mhm. maa ngi nuyu waa Sénégal maa ngi nuyu aussi ñi nekk bitim réew voilà maa ngi sant aussi ak gërëm ñi nga xam ni ñoo ànd ak man ci liggéey bi mhm. euh, ak ñi nga xam ni depuis bi ñu sampee mouvement tabaxaat Sénégal mhm. ak waa diaspora ba léegi ñu ngi ci euh, di jiital ci kaw Léopold Ndiaye ak ñi mu àndal. Mhm. Euh, ñii nga xam ni tey ñoo bàyyi seen lépp si suba si ànd ak man. Mhm. Euh, Rama Thiam. Mhm. Euh, Rama Dia Rama Dia Dimoche. madame Dia madame Dia. ak monsieur Cheikh Niang. Cheikh Niang voilà ñooñu ci tabaxaat la ñu nekk. alors ci mouvement tabaxaat ci mouvement tabaxaat léegi daal kon li ma la doon wax dernière fois bi nga fi ñëwee tey confirmé nga ko. parce que bi nga fi ñëwee dernière fois maa la doon bousculer ne la léew léegi Boubacar Seye politicien nga ngay léegi confirmer nga loolu non xam nga euh, fi réew mi toll la hmm. euh, tey dama wax ni euh, dëkk bi toll na foo xam ni tey il faut que ñu tabaxaat que yàqu-yàq yi dafa bëri ma jàpp ni aussi c'est un engagement citoyen ma jàpp ni aussi wareef la pour bépp sénégalais parce que su dëkk bi yàqoo ñëpp la yàqal donc il est temps que ñun euh, vu les enjeux ñu toog tey pour indi des réponses mm-hmm. euh, sur les questions transversales mm-hmm. donc loolu moo waral tey. Euh, après dinañ si ñëw. waaw d' accord. ayca <laughs> Boubacar Seye ku la xam euh, si Horizon Sans Frontières la la xamee Horizon Sans Frontières fu mu toll. waaw xam nga horizon sans frontière mu ngi fi ba léegi. Mhm. Euh, dafa am ñaari chose peut-être yu ma war a euh, rappeler. pour mhm. nit ñi gën ko xam. Mhm. horizon sans frontière c'est une organisation européenne. européenne horizon sans frontière juddoowul Sénégal. horizon sans frontière euh, s'active li li ko tax a jóg mooy la gestion des flux migratoires ci àddina bi. ñëpp horizon sans frontières sénégalais kese lay taxawal. déedéet yeneen ñi jóge si yeneen réew dem si yeneen. réew mais gisoo su su su ma su Maroc amee problème da nga ciy dégg. Mhm. su Guinée amee problème da nga ciy dégg. Europe bu amee problème da ci dégg ba Amérique latine. Mhm. donc Horizon sans frontières c' une organisation européenne buy jóg di wax sur les questions d' intégration. buy jóg di wax pour une meilleure gestion des flux migratoires ci àddina man nag maa ko samp ñeneen ñi ay nit ñu weex lañu mhm. boo xoolee yéen soo leen ma invité wolof la ñuy wax mhm. mais suñ ma interpellé au niveau international au niveau international foofu tubaab la ñuy wax wala beneen làkk wala espagnol wala leneen mhm. donc la demee mais tabaxaat nag c'est sénégalais Boubacar Seye sénégalais la tabaxaat boobu après dinañ si ñëw voilà mais mais mais mais Boubacar Seye yow rek la ñuy dégg ngay wax si Horizon Sans Frontières waa xam nga. Euh, amul ñeneen si si si nga leeral naa ko benn bis. Mhm. Euh, dama ni euh, Horizon sans frontières juddoo fi bi ñu ñëwee ñu teg l'antenne Afrique de HSF. Mhm. am ñu baax ñu ci nekk di ma ci jàppale. Mhm. ci wàllum projet yi nous avons un chef de projet qui s'appelle Abdoulaye Thiaw ci yeneen fànn yëpp am nañu ay ñii c'est des professeurs d'université ñii ñu ngi ci diaspora bi le directeur administratif et financier il s'appelle Ousmane Tamsir Ba mhm. ak ñeneen ak ñeneen ñu ci nekk c'est que ku nekk dafa am sa rôle man sur la thématique migration man maa ci gëstu c'est moi le chercheur donc boo leen ma interpeller sur ces question la man maa wax parce que ñooñu ñooñu loolu tam si sax wax na fi ay émission mooy bañ ma jàppee ak yeneen mhm. mais ñu ci bëri ku nekk sa rôle nga mhm. nekk beneen bi yàgg naa ko leeral ma ni Horizon sans kenn mësu koo financé dëgg la ba léegi horizon sans frontière euh, kenn mosu koo jox dërëm euh, coono bi man maa ko yenn xam nga tey euh, ñii ci ànd di liggéey ak man yëpp ils travaillent de façon bénévole yéen sañ ngeen ma woo mm. ma fexe ba ñëw waaye sañu ma ak nit waaw ak samay moyen sañu ma déplacer nit koo xam ni Euh, mu ngi bàyyi njabootam di ma jàppale ma ni ko dee war ngaa dem réew mi FM wala war ngaa dem ban télévision ci say mooy donc loolu man maa ko yenn gaana sax soo leen woowoon sax dinañ la wax ni am na yenn thématique yoo xam ni Boubacar moo ko yore mais y a une équipe qui travaille de façon bénévole mm. dama wax ni kuñ dul ku ñu fayul doo fayaate et c'est ça le langage de la vérité Horizon sans frontières gëm-gëm la bi ñuy ñëw Afrique tamit xalaatuñu woon ni nii lay méttee mm. gis nga la ma ci jëlee tëj donc xam nga ki lay tëj prison loo jàppale ah mais Boubacar dañ laa tëj parce que da ngay wax wax yoo xam ne tegoo ko fenn <laughs> amoo euh, preuve euh, amoo dara euh, moo tax ñu jàpp la tëj la <laughs> waaw bu si kanamee ma jox la ah, preuve déet déet waxal et leeralal ñun du ñu waxantu du ñu waxantu dama wax ni xam nga sax xëy na da nga indi waxtaan rek mhm. mais wax naa ko fii sa émission bi ma mhm. génnee prison foog naa jël nga ma waaw je rappelle que c'est Aline Badara Cissé yàlla na ko yàlla yërëm moo organisé woon deux journées de réflexion man mii j'étais l'expert associé la représentante de l'Union européenne bi fa nekkoon mm-hmm. hein moom moom woo mu ne ma monsieur Seyde soo ma joxee sa email mm-hmm. dinaa la jox euh, li ñu dugal fii au cours de ces dernières années ci xaalis mm-hmm. ay projets yu ñu fi def dans le cadre de la lutte contre l'immigration clandestine mu yónnee ma document bi ba pare quelque temps après sax mu recevoir ma avec une délégation HSF Afrique fii à la délégation de l'Union européenne xaalis boobu bañ ko xaymaa mu ngi toll ci plus de cent quatre-vingts millions d'euros environ cent dix-sept milliards de francs CFA j'ai les noms ñin ko jox euh, j'ai euh, programme yi ci nekk yin ci war a dérouler lépp kon man du ma inventé kenn xamul lu ma waxantu man du ma waxantu lépp lu ma wax rek dama koy démontrer euh, bañ ma interpeller man maa changé suma billet ñëw Afrique enquêteurs yi loolu laa leen njëkk jox kon noonu la demee te dëggoo benn yoon Union européenne taxaw di déedéet joxuñu ko lii parce que duñu waxantu c'est le document que nous avons remis donc côté boobu moom je crois que même ce dossier est toujours mmh. en cours parce mmh. que euh, dossier ba léegi pareegul l'union européenne non non non mm-hmm. mais mais l'union européenne mais tey jii li ñu laajoon mu ngi fi ba léegi dañ ne nañ na dañ ñu leeralal xale yaa ngi dee ci géej gi xam nga liggéey boo gis. dafa war ba léegi yéen a ngi insister si ñu leeral koppar yooyu. mais il faut une évaluation ñaata nit ñoo dee en deux mille euh, vingt et un il y a eu plus de quatre mille morts c' dans toute l' que nous nous disons mais maanaam Union européenne su fekkee par exemple dafay jox ay koppar. Euh, état wu Sénégal euh, pour jeunes yi ñibbi si fii maanaam genre projet yooyu comment ça se passe exactement. pour ñoom ñu retenir les jeunes. waaw mais c' des projets financés dans le cadre de la lutte lan moo indi tey la migration dans un pays comme le Sénégal mooy ndóol mhm. c'est l'extrême pauvreté le chômage endémique mhm. chronique des jeunes donc c'est des projets voilà donc c'est des projets dans le domaine de l'agriculture c'est des projets dans tel ou tel domaine pour nit ñi toog lépp est que est-ce que ay affaire ANPEJ yi ñuy dégg et tout. et DER est-ce que mën nañu wax ci xaalis yooyu. lay jógee mais ñoom ñëpp ñu ngi ci biir. ñu ngi ci ah, biir ñoom ñëpp ñu ngi ci projet xaalis Union européenne di c'est des démembrements de l'État ak yeneen yeneen yeneen yeneen yeneen yu fi nekk. donc noonu la demee. est-ce que pour yow loolu mën na xeex ndóol wala loolu mën na tëye. waaw les jeunes parce que jeunes yi ba léegi ñu ngi dem ñu ngi dee si géej gi. même si on n'en parle pas loolu moo tax ñu ne il faut un bilan. xaalis yooyu fan la dugg ñan lañ ko jox ñan ñoo ci profité da nga dégg jeunesse bi ne gisuñu dara di nga dégg bi coow li dukkee gis nga waa Pikine nee nañu woon dugal nañ fi temps mais ñoom suñu loolu. donc yooyu yëpp xam nga liggéey xam nga en Afrique nous avons un problème l'Afrique ne euh, nous n'avons pas euh, la culture du bilan. liggéey boo gis pour mu évoluer en efficacité dafay am. taxaw seetlu dafay am taxaw seetlu saytu dans les perspectives de solution. loolu mm. loolu dafay am. Mm-hmm. mais malheureusement loolu moo fi amul. nit ki kay soo ko joxee xaalis ni ko defal ma lii di nga am foo tollu xëy di ko ni xaalis boobu. yow da nga bëgg daal ñu leeral mbir mi. ba léegi yaa ngi xale yaa ngi dee moi je le dis dans toute l' Afrique. et j'ai mm. interpellé les l'Union européenne xaalis yu ñu joxe Afrique fu muy dugg. quelque part a une complicité parce que mënoo ma di ma jox xaalis ba pare. Euh, du dooma daf loo bilan et évaluation mais Europe moom li muy dox xam na ko ñoom li ñu soxla ab. mais est-ce que xaalis boobu ñuy ñuy ñuy jox état africain yi pour ñu téye jeunes yi est-ce que yow jàpp nga ni loolu mën na téye jeunes yi. non lii téye jeunes yi euh, xam nga dangay jël da ngay jël la typologie des des co des des boo jëlee la typologie des des des euh, les causes de la migration dëkk bu mel ni Sénégal dañu wax ndóol bokkul ak yeneen dëkk dafa am la migration forcée. euh, et la migration pour des raisons économiques dëkk bu mel ni Sénégal foofu lañ ko jàpp xale yi amuñu nda xëy. c'est pour des raisons économiques. il des raisons économiques et mais aussi il y a les raisons socioculturelles. Mm-hmm. parce que la notion de am am tekki yooyu yëpp dafa ñëw moo tax dafa laaj ñaari xeex en amont et en aval et cetera et cetera donc xaalis boobu ñuy dugal Afrique dëkk bu mel ni Sénégal c'est dans le cadre de la lutte contre l'extrême pauvreté le chômage endémique quelque part mën na téye parce que tey jii kat ki jël gaal. Euh, di risquer sa vie yaakaar ni kat su demee Europe dana fa liggéey xëy na su amee lu mu jàpp toog ça va réduire les risques à des proportions tolérables mais tey pour téye immigration dama jàpp ni kenn mënu ko téye parce que contexte bi ñu nekk dañu nekk dans un contexte de mobilité croissante des mm. populations mm. mm. ñëppay tukki kon tey voilà da il a même été démontré que du rek ñi ndool ñooy tukki tey y a mondialisation des flux migratoires ñun dañu jàpp ni Europe war na xoolaat sa posture hein dans les flux migratoires là parce que profil yi moo bëri am na xale am na jigéen am na chercheur am na ñëpp mondialisation lañ nekk kon tey nañu fexe ba organiser la mondialisation ba mu jaar ci anam mm. bu normal bu legal ba nga xam ni kenn dootul jël gaal pour tukki ñun loolu képp ku bëgg tukki di nga dem aéroport mu tàgg sa billet mu jaar ci anam bu mais l'Europe dafa fermer les porte mm-hmm. l'Europe euh, se barricade teg des frontières physiques politiques et juridiques tey frontière am nekk des lieux de de souffrance voire des cimetières. te gis nañu tout le temps euh, euh, dañuy gën a durcir maanaam conditions yi pour ñu may la visa par exemple à chaque fois dañ koy gën a métti da gis sax koo xam ne am na les moyens dafa bëgga a dem euh, visiter Europe benn un mois de mois mais dañ koy bañal visa bi tout le temps dañuy durcir les condition alors que ñoom suñu bëggee ñëw c'est c'est tegoon nañ fi euh, euh, visa euh, comment dirais bi nga xamante ni moom la Youssou Ndour initié woon bi mu nekkee ministre de la culture mais gis nañ ni loolu jàllul est-ce que pour yow loolu ça peut régler le problème le fait que Europe tëjal ñu ay frontières am. ñu ubbil ko suñuy bos. loolu moo tax ñu ne Europe tey war na xoolaat tey. Euh, sa position dans la gestion de ces flux-là loolu moo tax ñu ne Europe dafa war a remettre boppam en cause parce que mondialisation des flux migratoires laa wax. Mhm. mais tey problème yooyu moo am da ngay gis wax naa ni sànq ay profil yu bëri da ngay gis ay chercheurs je me rappelle au mois de novembre waroon nañ dem université Grenoble ak maag benn kilifa bu mag fii ci dëkk bi mais kooku dañ ko rejeté visa am te pourtant conférence rek lañu doon dem à l'université de Grenoble donc yooyu yëpp. ñu rejeté visa moom ñu rejeté visa am ak ñeneen ak yeneen cas yoo xam ni da ngay gis ay chercheurs yoo xam ni euh, ñëpp xam nañ ni dañuy dem pour dans le cadre de le travail ñu rejeté leen. nga gis koo xam sax amul envie toog Europe mais am na envie dem. visiter benn quelques semaine ñëwaat mais dañ koy refuser le visa bi comme ça. tout à fait lool moo tax nag ñu ñu ne tey euh, Afrique dafa war a euh, harmoniser ses positions ne serait-ce que mu am quand même benn parallélisme des réponses Euh, parce que nag euh, boo xoolee euh, les pays européens là amuñu répondant gisoo Europe dafay def lu ko neex Afrique jéemuñu ànd nekk benn lancer l'initiative dama leen sax proposer l'initiative africaine mm-hmm. sur les migrations internationales ba nga xam ni problématique yu demee nii bu amee une réponse commune dina mën a changer un peu mais loolu amul donc tey jii mondialisation bi nekk Afrique gagnerait mieux. Mhm. Euh, ànd nekk benn. Mhm. mais le problème des Africains mooy dañoo dañoo dañoo dañoo déggoowul. Mhm. dañoo dañoo nangulantewul. dañoo wóoluwantewul. loolu moo tax gisoo ñu leen di nax européens yi dañuy ñëw par exemple dëkk bu mel ni France day ñëw bëgg a négocier avec. le Sénégal euh, bëgg a négocier avec la Côte d'Ivoire alors que ñooñu l'Europe la ñu war a négocier et non la France yooyu yëpp nag tey mu nekk ça pose problème loolu moo tax c'est sur ces questions géopolitiques ñu ñun ci la ñu nekk di xeex en Afrique pour un éveil des consciences loolu moo indi sax le moo tabaxaat parce que tey boo xoolee Sénégal Afrique waaw il faut léegi lay ñëw si tabaxaat mais avant tabaxaat waaw euh, foo toll ak Bougane Gueye Dany waaw parce que doon nañ la seen gëm sa bopp Bougane xam nga waaw ma leeralaat ko tey. Mhm. Bougane Gueye Dany c'est mon frère. Bougane Gueye Dany li ko wokk mooma wuri bëgg Sénégal moo tax ñu sampoon gëm sa bopp je suis membre fondateur de gëm sa bopp bi ma ñëwee fii Sénégal dama ni gëm sa bopp pour une relecture des perspectives en Afrique. Mhm. il faut que xale yaa ngi dee. kon bi ñuy fondé gëm sa bopp yaa nga fa. déglu rek maa ko samp mhm. dama la wax ni Bougane incarne ce qu'on appelle une relecture des perspectives de par parcours am. modèle de jeunesse la loolu moom mooy gëm sa bopp mais tey man maa samp le mouvement tabaxaat parce que tey le contexte géopolitique tey daf ko wanewaat au Sénégal yàqu-yàqu yi dafa bëri ba tax na tey pour ñun il faut appeler à la reconstruction du pays. maanaam yow sa bopp waaw dama wax ni tabaxaat. waaw euh, gis nga gis nga gis nga gis nga gis nga c'est c'est c'est tout simplement tabaxaat. Mhm. Sénégal ak waa diaspora ak waa diaspora ànd tabaxaat Sénégal. mais dañu woote la sénégalais nekk si diaspora bi nga nga visé. déedéet pas tous les sénégalais. ànd tabaxaat xam nga xam nga euh, sénégalais yi nekk ci diaspora bi. Mhm. gulet euh, un mouvement jóg boole leen ci amul benn parti bu am lu mot diaspora man ma nekk ci diaspora bi di ci yëngu ki nekk ci keneen nekk ci. Mhm. léegi tey dañu wax ni tey fi dëkk bi tolloo ak yàqu-yàqu yi ni mu bëree. Euh, ñëpp xam nañ ni tey. dëkk baa ngi doxee boo xam ni du du bëgg-bëgg askan wi. Mm-hmm. dama wax ni tey il faudrait une prise de conscience que doomu réew mi ñooy tabax réew mi parce que yàqu-yàqu yu bëri na. Mm-hmm. sur le plan jikko. lan mooy sa touche originale. ak mouvement bi di tabaxaat Sénégal. ak la diaspora pour un Sénégal meilleur. loolu mooy mm-hmm. suñu slogan. ñun ñëpp ñu ànd tey diagnostiquer. les problèmes euh, fexe ba tëggaat beneen Sénégal. kon dañu wax ànd ak waa diaspora bi parce que c'est ça l'originalité et l'objectif stratégique c'est parce que contexte bi la tey feebar bi wane na ko avec le Covid. Mm -hmm. la guerre en Ukraine wane na ko. la guerre au Mali wone na ko. il mhm. faut de nouvelles perspectives loolu la tabaxaat woote. mais mouvement yi dañoo bëri euh, Boubacar Seye yow tamit yow léegi yow ba lan lan mooy sa touche. waaw l'originalité parce que da nga bàyyi ba élection législative yi jub si. nga teg sa mouvement. lan la da nga bëgg a nekk député wala lan la. voilà très bien la question mm. xam nga li ko mm. indi. Mm. Euh, il Euh, dama déclarer sama candidature aux élections législatives mhm. ni tey euh, gannaaw ba ma yàggee taxawu doomu sénégalais yi nekk bitim réew ci seen wàllu droit seen wareef mhm. gannaaw ba ma yàggee prononcé wu ci biir dëkk bi mhm. sur les questions transversales géopolitique et géostratégique tey euh, dama dama dama jàpp ni après vingt ans fat ñaar fukki at ma nekk di ci gëstu di ci liggéey Euh, dafa jot quand même ma ma ma ma jaat ma ma ma ma ma dem ci beneen étape. Mhm. parce que balaa nga naan naam ne fa xam nga mhm. yàgg nañu wax. Mhm. tey ñaata doomu sénégalais la ñu rey chaque année ma defal leen bilan. mais amul enquête. Euh, ñaata doomu sénégalais la caabi féete ginnaaw ba léegi amul enquête. donc loolu ñu doon faral di wax. dama jàpp ni tey suñu yàlla. su yàlla mottalee suñu yéene ba ñu dugg assemblée. Mhm. la ñuy faral di wax pour le bien du Sénégal et de sa diaspora war naa mën a nekk des proposition de loi wala ay projet donc pour man balaa nga naan naam ne fa alors bi ma déclaré suma candidature. Mhm. boo xoolee ça a été très largement médiatisé. ba am ñu poser question maintenant sous quelle bannière. sous quelle bannière. Mhm. la Boubacar Seye di présenté woo. mais soo xoolee. ñu bëri foog ne ci Bougane ngay bokk. Euh, soo xoolee. Euh, les députés de la diaspora. Mm-hmm. am na quinze. quinze députés quinze députés. Mm-hmm. mais soo xoolee amul groupe parlementaire diaspora xam nga li tax. Mm-hmm. Euh, député yooyu ay parti ñoo leen investir. donc c' est le schéma la diaspora comme grenier politique. c' est le schéma diaspora buy liggéey les partis politiques classiques boo xoolee même ci parrainage bi juridiquement soo liree le code ne prévoit pas la diaspora donc man euh, d' accord parce que loolu bañoon naa ko en deux mille quinze kon la ma bañoon daaw moom laa war a bañaat ren parce que man dugg assemblée mooy gën a yomb ci man ma samp mouvement. Mm. parce que parti dañuy ñëw ci man pour ma représenter leen dans la diaspora. Mm. ma ni bëgguma loolu parce que tey li ma bëgg moo ñu am un groupe parlementaire diaspora bu ñu permettre ñu mën a. poser les véritables mm. parce que am na 15 waaye 12 yi boo xoolee benn bokk. yaakaar la ñuy far kon kooku ñoom li benn bokk yaakaar la la ñuy bëgg. ñeneen ñi ñi ngi ci gën a xam ci parti opposant la ñu nekk mais du ñu am doole ak autonomie bi ñu bëgg léegi ñun su ñu posé pour mu am des réformes mm-hmm. loolu moo tax ñu teg tabaxaat bu boobaa tabaxaat mm-hmm. euh, du liggéey pour un parti classique boppam lay liggéeyal parce que c'est la cause de la diaspora moo tax ñu ne ak waa diaspora bi mm-hmm. impliqué leen ba nga xam ni tey suñu yàlla dimbalee comme ni ñu ko bëggee les quinze députés la affiliés à tabaxaat bu boobaa dinañ am un groupe parlementaire bu boobaa day nekk aussi yëfu diaspora bi. kon ñun nii lañ contourner piège bi. parce que tey toogoon moo yomb ci man. di nga gis ñoo xam ne am nañ caution am nañu lépp am nañ pare man damay toog rek ñu wateel ma ma dugg. waaye nii c'est c'est se c'est mooy samp suñu bopp. wala da ngay daw basket bi ñu la doon woo politicien ainsi de suite. moo tax nga def sa mouvement bopp. xam nga li ma la wax ni man euh, tey jii. parce que da doon wax xeex bi doo si mës a dugal politique. non horizon sans frontière am politique. tabaxaat. xam nga waxuma horizon sans frontière tabaxaat Sénégal ah, la wax xam nga li tax waaw mais waaw taxal ma wax la nag li tax may politique tey waaw parce que fi dëkk bi toll mais man duma politique politique bi ngay xalaat ni moom la ñëpp di bañ ba kenn nangul d'accord ñu ne la politicien hmm. man je mène benn politique de développement une politique citoyenne hein une politique de proposition d'idées et de réponse sur ces questions-là yi ma wax parce que les enjeux tey en Afrique les enjeux sont majeurs donc tey il faudrait cette révolution socioculturelle épistémologique pour que Afrique ñu xam ni doomu réew Afrique ñooy tabax Afrique. Mhm. doomu réewum Sénégal ñooy tabax Sénégal Sénégal kenn du ko tabaxal suñu bopp. Mhm. c'est pas des institutions internationales telles que Fonds monétaire FM ñooñu mosuñoo développé wam réew. donc looloo tax tey ñun ñu soobu ci sur les questions comme la migration bi nga xam ni tey dafay dévoiler des problématiques de paix de sécurité et d'intégrité dignité humaine. ñu pousser la réflexion pour que moom une harmonisation au niveau africain mais loolu nag balaa nga naan naam nefa mhm. wax naa ko pendant vingt ans. maintenant il faudrait une réponse politique nga ñëw bokk ci biir. loolu moo tax ñu ñëw teg suñu teg suñu ndënd. Mhm. daf ni ñëpp nag. mais du politique bu ñuy saaga. Mhm. du politique bu ñuy xastante parce que kenn xamewuñu loolu. li ñu xamee mooy des proposition sur des question géopolitiques. mais dem nga ba xam ne bala nga naan naam ne fa. Euh, tey jii président Sall bu la woon teg la ci wetam pour nga liggéey di nga ko accepté waaw wala déet. loolu loolu parce que xam nga ni yuuxu bi doyatul. waaw loolu waaw loolu moom fan yëpp ñu ma koy laaj. parce que les politiciens nga. waaw non kon président Sall war na la mën a woo. ne la am nga mouvement. damay ñaan yàlla bokk ci politiciens yi tabaxaat Sénégal loolu moo tax ñu ne tabaxaat ba moo tax ñu ngi ci sant yàlla deux mois lañ ko deux lancé. Mm-hmm. mais les adhésions sont massives ñu ci woo ñëpp. xam ni seen yëfu bopp la tabaxaat la. waaw léegi tontuma ci laa jëm ci tabaxaat bi. ci laa jëm. waaw euh, dama koy waxaat. Mhm. Sénégal yëpp ñu may déglu. waaw Boubacar ak ñi mu àndal du ñu mus ànd ak président makki Sall parce que makki Sall. Mhm. Euh, euh, du ñu mës a ànd ak. du sëy mm. Boubacar xaw ma ban langage nga laa bëgg mu wax ko. Mhm. waxuma fa lu leer laa wax tabaxaat. Boubacar Seye du ànd ak Macky Sall parce que bokkuñu li ñuy dox ñun Sénégal moo ñu tax a jóg Macky Sall ni mu tëralee Sénégal ni mu doxalee Sénégal su jaaroo yoon kon tabaxaat du am nee naa la yàqu-yàqu yi dafa bëri kon mënuñu ànd ak ki nga xam ni tey Sénégal su tollee fii le Sénégal je rappelle le Sénégal est un grand pays mmh. le Sénégal est une porte d'influence mmh. aujourd'hui le Sénégal renonce à sa grandeur avec Macky Sall kon tey man du ñu tabaxa pour defar li yàqu tey di ànd ak ñi nga xam ne ñoo yàq réew mais pour président Sall woo la la kaa euh, euh, ah? euh, d'État des Sénégalais de l'extérieur loolu su ma ko bëggoon am naa ko. mais ah, depuis maa ngi fii. Mhm. yow émission bi ñaata yoon lañ ma invité ëppul plus de vingt fois kenn xamul kan la mhm. depuis combien de temps on pose cette thématique là est-ce que na mus nañ ñu déglu xale yaa ngi dee ci géej gi nan la ñu mujjee tëj Boubacar Seye prison mhm. kooku soo ko mënoon éliminer ko taxul a pauvreté bi bëri na nañu yërëm dëkk bi xoolal dëkk bi euh, sutura nit ñee xawee ko koo gis mu ngi wër di ñaan fi nga ko xalaatul sax mu ngi ñaan mm-hmm. y a une injustice sociale ñu ngi complot man complot nañ ma gis nga ñu ngi complot waat ñeneen ñëpp pour téye leen loolu dëkk boobu dëkk boobu man euh, su jaaroon yoon kon du toog fii tey di wax euh, les enjeux dama jàpp ni ñun Sénégal mm-hmm. war nañ ko mën a tabaxaate na neen mm-hmm. dama jàpp ni Sénégal ñun ñëpp ñoo ko bokk kon nañ ko yore ci anam bu rafet gis nga nguur yàlla moo ko jox nit yàlla mooy dindi nguur jox la ko yow mais su la ko joxee na nga yërëm doomu aadama yi man kat man maa fi nekk loolu yàlla dogal nañu ànd tabaxaat réew mi nañu ànd dafa réew mi waaye dëkk bi yëpp ay injustice sociale la dëkk bi yëpp c'est des inégalités sociales. mais mais Boubacar si li ngay wax nii moom la politicien yëpp di wax. waaw moom la parti politique yëpp di wax. moom la bii nag euh, mouvement yëpp di wax. waaw bii xam nga déggoon dama leen ndey kumba. waaw man. Hmm, xamaloo ma caaxaan du dëgg euh, sama diagnostic laa def ak ñu ma àndal mhm. ñenn ñi sàll gendarme mais man lii laa wax te lii laa musa wax te lii mooy dëgg loolu moo tax ñu ne tabaxaat aujourd'hui pour une prise de conscience xëy na ñoo mhm. la ñu am waaw mais bi nga bi nga lancé ñoom ñoo ko moom de maa ngi leen ciy woo lu ñu wax mais nag ah waaw am na ñuy adhéré am na ñu commencé am mhm. mais bien sûr am na ñuy adhéré de partout mais comme li ma wax la lii c'est notre conviction personnelle képp ku ci gis sa bopp ñu ngi lay woo ci biir tabaxaat mais tabaxaat moom jàppal ni du am caaxaan hmm. du am foo parce que nit ñi xamee luñ ko tabaxaat liggéey la ñu woote dans l'expertise hmm. la justice sociale gëm yàlla ak ragal yàlla amul saagante amul wax lu ñaaw amul leneen doo dégg ñun ñu wax nit lu ñaaw doo dégg tamit ñu ŋàññi kenn ñu ne daal tey il faut mettre les gens dans une dynamique de travail hmm. parce que les enjeux sont majeurs ñu ànd ñun tabaxaat Sénégal ñun lii la ñu wax. kon yéen a wut ay parrain. waaw ñu ngi pour élection yi ñu ngi wut ay parrain. ñu bokkoo leen si ñuy wax parrainage bi d' accord uñ si di xeex parrainage mais bien ngeen si parrainage waaw wala déet. ci parrainage bi nga xam ni filtre la. ce parrainage va risque de plonger le Sénégal dans dans le chaos total. Mm. la preuve en est gis nga même la la la la cour de justice la CEDEAO nee na leen teggi leen seen tànk ñoom ñu bañ. ñoom ñoom ñoom ay fervent euh, euh, euh, défenseur lañ de la CEDEAO hmm. mais su lañ neexee la ñuy appliquer les décisions de la CEDEAO est-ce que tabaxaat dana parce que ni ma ko gisee nii yaakaaruma ni coppite dina am fii ak élection no duñ ko changer le parrainage moom jàppal ni faaw nga wuti ñoom seeni i liste hmm. seen liste rek ku ñu bëgg mu jàll parce que xam nga élection yi hmm. dafa am des enjeux majeurs pour eux parce que suñ ko pertee comme nu ñu pertee local yi donc ils sont obligés de cohabiter mm-hmm. ba pare il y a les ambitions du troisième mandat loolu aussi tey suñ leen gagné mm-hmm. day dagg lool alors que fii dans ce pays là troisième mandat mën nañu fi am nañ ko teg ci suuf euh, il faut libérer les consciences ay troisième mandat mais mënul am Sénégal troisième mandat pour lan ñoom ñoom ñoom il cette légitimité là am xam nga tey euh, damay wax ni mm-hmm. ñun ñëpp ñoo bokk dëkk bi kon nañu fexe ba bu dëkk bi lakk dëkk bi nañu fexe ba bu mu lakk nit ñi ñoo la ko joxoon te soo xoolee euh, yaa a une déception la déception est générale dafa feeñ ci élection locale yi passé mm-hmm. gis nga les violences étaient multiformes mm-hmm. multisectorielles et multidimensionnelles secteur yëpp dafa am crise dans l'enseignement doxul la santé doxul euh, l'éducation l'éducation doxul euh, gis nga le social doxul kon tey dëkk bi fépp metti moo tax il faut que ñu tabaxaat dans l'expertise nga dëkk Euh, xam-xam moo ko yore mais dëkk boo xam ne dañuy xeex borom xam-xam yi di leen bunduxatal du dem dëkk justice sociale moo ko yore tey notre combat devrait être le combat de la justice pour la justice dëkk bi yëpp ay projet la ay complot nit neexuma rek ñu ko gisoo dañuy xaaw yi sutura nit jikko yi yàqu na yaa ngi enregistré nit yaa ngi fexe noo toroxalee nit te pourtant ñun ñëpp ñoo bokk dëkk bi mm-hmm. lan moo ko fi jar ñun loolu la wax tey jii feebar bi wane na ko. Mhm. gis nga bi feebar bi commencé lan nga dégg amuñu ay lal amuñu mhm. gaz amuñu masque. Mhm. Euh, dañuy xaar sax ñu ñuy indil ay garab. te xëy na lii doon fat feebar mu ngi fii ci dëkk bi fii ci kon tey nañu boole les forces gis nga tey exclusion bi am euh, la médecine traditionnelle waroon leen mën a intégrer. tey waroon na am un ministère de la santé chargé de créer des infrastructures. ñuy tabax ay hôpitaux. tey waroon na am un ministère de la santé chargé. de la recherche ñuy gëstu dëkk gëstu moo ko yor loolu amu fi gis nga dans le domaine de l'enseignement tey gis nga la crise bi am mm-hmm. parce que nous avons un un un un système éducatif très mal adapté à nos réalité mm-hmm. donc il faut que ñu tabaxaat il faut qu'on revienne même dans les perspectives de solution de tabaxaat au système des daara les daara de Koki dañu joxe mm-hmm. exemple il faut intégrer les les les les les les ñi jàngale arab parce que exclusion sociale baaxul ak ñeneen ak ñeneen gis nga le secteur informel ils le secteur de l'artisanat gis nga la pêche géej gi dañ ko jaay ñooñu ñëpp tey nekk ay problème fii ci dëkk bi te il faut rétablir la dignité humaine parce que nit ki soo xawee suturam lii lay joxe donc loolu moo tax ñun ñu ne tabaxaat te tabaxaat bi ñu wax ñëpp lañ ci woo nit ñu ñu ñu ngi ci fekk si mais ñu lu ñu yàkkamte aussi tabaxaat li ko indi mooy sama candidature tabaxaat yàkkamtiwuñu. est-ce que Boubacar yow xam euh, euh, gëm nga ne di nga mëtal parrainage. mais déggoo li ma la man sama yéene laa wax. Hmm. mais yàlla mooy mottali man li xew ëllëg xaw ma ko confiant xam xam ne vraiment. waaw mais am naa am nañu yaakaar ak ni nga yàggee xeexal diaspora mais je l'espère je hmm. wax am na ku ni tey su la diaspora bi delloo leen njukkal. Hmm. tëj la kasoo def euh, la lu ne ndax ah, diaspora bi. waaw su la diaspora bi delloo njukkal Sénégal tamit delloo la njukkal parce que kër goo dugg nag. am na koo xam ni tey mbokkam mu ngi ci bitim réew te suñ jaaxle ñun la ñuy wër demuñu ci état bi li ma la li may jot ci ay coup de fil ay ndimbal ay nit dañoo suñ doon loolu bëri am moo tax am na ku ma ni suñ la delloo suñu fayee naar bi xoromam mm, normalement parti bi comme ni ko professeur Malick Ndiaye waxee tabaxaat moo xew kon addina bi yëpp dañ la war a fekk si alors su la diaspora bi doolelee je crois que soxla ñu ngi xaar mais dama wax ni xeexal leen dama wax ni gis nga assemblée boobu ngay dégg noonu mm-hmm. ne nekkul pour ban une fin en soi bëgg-bëgg la mais xam nga man tey sama fierté mooy lan. Mm-hmm. sama kontante mooy. Euh, tey fi dëkk bi toll ñu ne tabaxaat àndi ceeg ñu baax ñu mel ni ñii. Mm-hmm. dégg ñu ñëw ñu ci xeex kon yàkkamtiwuñu tabaxaat day continuer dugg assemblée woo bañ a dugg assemblée. dafay continuer du ma député. Mm-hmm. waaye saa bu ñu amee problème di yéen ñi mën ngeen di ñëw. lu mu yàq si li ma liggéey. dara kon dugg day gën a dëgëral la may liggéey. balaa nga naan naam ne fa waaye tabaxaat moom. Euh, tey li ñu ciy sant yàlla mooy au moins Sénégal am na mouvement bu bees bu ma defee émission sax da ngay gis dañuy woor ci rajo yooyu. Mm. am na ku ma woo barki dem ni ma musuma def politik waaye mm. tey yow convaincre nga ma dugg naa ak sama njaboot. Mm. kon su suñu diaspora bi jàppale. Sénégal jàppale ñu parce que Sénégal la ñu xeexal. ak la diaspora. kon tey le problème du parrainage ne se posera pas. bien que d'accorduñ ci yeneen problème du moo tax ñu ngi commencé ñu ngi jaay carte. ñu ngi dugg ngi seeti ay nit pour ñu jàppale ñu parce que parti bu fi jóg rek dañ laa jàppale. donc ñu ci woo ñëpp nag ñiy déglu sa rajo bi comme ni ma ko waxee rek nous réitérons l'appel ñuy woo ñëpp ñu may ñu doole parce que doole lañ ci soxla bu ñu ci amee doole am naa yaakaar ni Sénégal. Mhm. Euh, xëy na ci année yi ñu bëri ne serait-ce ñun bokk ñu tuñ mhm. mais les génération à venir alors dinañ fi teg un projet futuriste bu leen di mën a taxaw ba kenn dootul dee ci géej gi. Mhm. ba kenn euh, ku xiif mar ku xiif lekk ku mar naan. ku feebar faju parce que tey Sénégal dem nañ ba nga xam ni ku feebar dee nga parce que boo demee dans les structures euh, mm-hmm. Mm-hmm. sanitaires sax sénégalais yi fajootuñ dañuy toog seen kër nit ñi sonn nañu voilà yooyu yëpp nag la ñu bëgg rétablir la donc lii tabaxaat ñëpp la woo mm-hmm. et gis seen bopp mënuma la ko wax bis bu nekk nous avons des adhésions ci loo xam ni il y a deux semaines lañ ko lancé gisoo ñëpp a ngi ñëw alors euh, dynamique boobu la ñu bëgg a continuer mais du lu ñu yàkkamti processus la. Mhm. nous nous inscrivons dans la durabilité. di ci woo ñi nekk ci Sénégal ak ñi nekk ci diaspora bi pour wax ni doomu réew mi ñooy tabax réew mi te tey jii le le le le le l'objectif stratégique nag mooy tabaxaat. voilà léegi Boubacar Seye gis nga fan yi ñu euh, jël ay yalwaankat yoo xam ni ay nigérien yu baree bari yu nekkoon fii Sénégal euh, delloo leen seen réew nga gis image ni mu ñaawee nga gis niñ doon nekkee ci mbedd ndakaaru yi yow ant euh, ban analyse nga si def niñ leen jëlee delloo leen noonu ngoo xam nga loolu yàgg naa sax alerté sur ça mhm. euh, mais tey li manqué Afrique mhm. wax naa ko dama ci wax naa ko dès début de l'émission il y pas une convergence fiscale et sociale amul benn architecture de paix et sécurité entre les peuples pour faire face à ces tous ces défis là loolu mooy suñu problème parce que chacun va de façon dispersée xam nga rapatriement ak expulsion violation droits humains la mm. xam nga man mënumaa d'accord nous dans notre dans les dans les objectifs euh, fondamentaux statutaires de de de Horizon Sans Frontières amul toroxal doomu aadama. d'accord leen si niñ leen delloo. non non non parce que parce que ci yenn anam lañ ko defee ak ci waaw yooyu yëpp moo tax ma ni la su amoon une convergence fiscale et sociale une architecture de paix et sécurité qui parle de libre circulation des personnes xëy na am na yoo xam du am dafa am des failles Afrique. loolu moo tax nous nous jàpp nga ni chef d'état yi ñoo échoué moo waral euh, phénomène boobu mais sur ce dossier migratoire là xam nga tey dama la wax ni Afrique àddina mm-hmm. mobilité moo ko yore croissante mobilité croissante contexte boobu la ñu nekk tey l'Afrique est une terre de mobilité avec plus de vingt millions de migrants à l'intérieur du continent mais tey y a aucune harmonisation soo buggee léegi dugg Mali gii dañ la fay toroxal mm-hmm. nga bëgg dugg Côte d'Ivoire ñu toroxal la yeneen dëkk ñu toroxal la yooyu yëpp la ñu war a xoolaat dëkk bu mel ni Sénégal nag waroon na jël euh, ce leadership là c'est-à-dire que dox ko mhm. le Sénégal hub la 42 pour cent des migrations intra-africaines dama wax ni se dirige vers l'Afrique de l'Ouest et le Sénégal mhm. la aujourd'hui c'est le la présidence de l'Union européenne de l'Union africaine Sénégal waroon na diligenter une conférence africaine sur la thématique lancer l'initiative africaine mhm. pour des questions internes et aussi pour faire face à l'Union européenne moo ya nga doon wax sànq. Mm-hmm. la réciprocité. Mm-hmm. ñu ngi tabaxaat yooyu yëpp moo manqué. Mm-hmm. looloo tax tabaxaat bëgg ñëw relancer le débat sur de nouvelles perspectives panafricaines gis nga tabaxaat ni mu yéegaatee. dafay yéeg CEDEAO dafay yéeg ba l'Union africaine. pour que ñu harmoniser. gëm sa bopp ma ma doon wax tey tabaxaat c'est l'opérationnalité de gëm sa bopp. de cette philosophie là tey il faut ñu tabaxaat. yàqu-yàqu yi dafa bëri. les fondamentaux ci yi. dañoo daanu. Mhm. beneen question bu am importance balaa temps bi di jeex parce que bareetul. Mhm. di euh, propos yu Éric Zemmour nekk candidat à l'élection présidentielle française ñu gis ni yëkkati na ay kàddu euh, saaga wala xas sénégalais ne moom bis bu euh, faloo pratiquement sénégalais yu bari dina leen génne France parce que ay bandi lañu ay trafiquants lañu en tant que président Horizon sans frontières loo siy wax yow. waaw xam nga Éric Zemmour. Mhm. dafa am lu may tuddee euh, mhm. échec de l'intégration mhm. Éric Zemmour loolu lay symboliser xam nga Éric Zemmour euh, ab naar la mhm. léegi xa est-ce que xel mën naa nangu ab naar buy xas ay nit ñuul ci dëkkum tubaab <laughs> voilà xam nga xel mënta nangu loolu voilà donc Éric Zemmour euh, loolu lay symboliser xamul l'histoire de la France mais tey xam nga débat bi mu posé c'est le débat des politiques d'intégration tey débat bi mu posé tey moom mooy l'absence d'offre politique ci ci ci ci élection yi am tey. Mm-hmm. en France boo xoolee candidat yëpp xam nga se leur fonds de commerce. Mm-hmm. c'est l'islam et la migration loolu rek la ñuy wax. amuñu beneen kii l'islam et la migration l'islam et la migration extra-européenne parce que ñooñu ñooy seen problème parce que l'Europe a peur euh, d'être détrônée euh, politiquement et socialement par l'islam nit ku ñuul. loolu mooy loolu mooy seen problème moo tax fonds de commerce bi xam nga avec la disparition du du du mur de Berlin il y a eu la dis dafa am euh, avec la chute du mur dafa am la disparition des idéologies donc tey c'est les questions identitaires alors que on devrait être dans le culte de la diversité xam nga euh, euh, dafa am quelques mois de cela mm. la présidente de la commission européenne la dame là mm-hmm. dafa jóg ni par rapport bi muy xeex immigration mu ne il s'agit de défendre un mode de vie européen mais c'est extrêmement grave waxul alors que moom en tant que dirigeant li mu waroon wax c'est le c'est le culte de la diversité kii c'est un citoyen européen ñeneen ak ñeneen pourtant ay nit ñu ñuul lañu ba pare nekk jullit mm-hmm. donc foofu le problème nekk les propos de Zemmour tey devrait interpeller mais boo xoolee France kenn waxu ci parce que ñoom li ñu bañ li ñu mënul woon wax Zemmour mu ngi leen koy waxal mm-hmm. Zemmour c'est un accident de l'intégration ñoom ñëpp boo xoolee en Europe on parle de, de, la théorie de remplacement subversion culturelle la ñu wax mm-hmm. ñii dañuy ñëw alors que amul benn subversion xamuñu seen histoire parce que suñu xamoon seen histoire lu ñu taxaw Valérie Pécresse nee na su gañee day arrêter les transferts de fonds na ñu ñëw jël si seen i gan. Mm-hmm. et c'est là où il faut aujourd'hui interpeller parce que avec la crise en Ukraine boo xoolee. Mm-hmm. africains yi dañu leen doon dund xatal di leen sonnal. Mm-hmm. j'avais interpellé ni leen na na na Sénégal diligenté dans une démarche communautaire euh, pour ñu am. euh, un corridor humanitaire sécurisé léegi y a eu plus de dix millions d'Ukrainiens ñu génn Europe mhm. ñu génn seen dëkk tas dans les pays européens ñu ngi leen di accueillir di bundu xatal noir yi xam nga li tax pour les dirigeants pour certains dirigeants européens l'Europe et judéo-chrétienne et blanche et blanche kon gis nga tey suñu jógul xeex ñun liñ doon xeex ñu jàppaleen ci africains yooyu yëpp dinañ am problème di nga ñi amul kayit moom dañ leen di delloo la preuve ne que ñu ngi rapatrier euh, ñi amul kayit da ngay dem di renouveler sa kayit ñu ñu bloqué la génnal mhm. parce que ñoom c'est ça donc tey le débat se pose sur l'intégration loolu la érigé mu posé waat saaga yi man noonu laa ko jàngatee mhm. moo tax keroog bi ma ci waxtaan ak Jeune Afrique bi ñu ma ci posé le lendemain dañ ne ñu ngi toppatoo sax pour defal la beneen interview bu gën a yaatu parce que li nga wax ni moo am xam nga fu amul intégration on ne peut pas parler d'immigration et bi ñu war a yaatal gan yi ak ñi fa ñi dëkk ñi ñu fekk si tënk ko dans une relation constructive. Mhm. boo xam ni respect la ak tolérance mutuelle. mais mais y a aussi un problème qui se pose Boubacar parce que boo dégloo fii. suñu politiciens yi nga nekk euh, candidat à l'élection présidentielle da ngay gis ku ne l'Afrique aux Africains ñëppay tàccu kontaan mais mhm. pourquoi suñu euh, gisee benn euh, koo xam ne candidat la Euh, en France ne la France aux Français ça pose problème lan moo tax loolu. waaw parce que la France dafa nekk euh, xam nga bokkul. contexte bi moo bokkul l'Afrique aux Africains. waaw France dafa am un contexte. très particulier ñu gis ay ñoom Guy Marius Sagna doomu réew mi ñooy tabax réew mi. nañu dàq français yi nañu leen génne suñu économie ainsi de suite mais pourquoi. xam nga benn français bu sampee nëndëm ne la France aux Français alors là y a problème. waaw waaw ba léegi d'accord naa la France aux Français mais nañu bàyyi kon Afrique parce que ñoom France fii la ñu. non mais ça pose problème. Boubacar waaw ça mais je vais vous expliquer pourquoi. xam nga France dafa am un un statut particulier la France dafa nekk une terre d'immigration depuis la seconde moitié du dix gis nga ñeenti français yoo jël kenn ci maamam gan la dafa feeñ dans la l'actuelle composition de la population française loolu moo tax euh, François Héran le l'ex l'ancien directeur de l'INEM mhm. daf leen ni le problème de la France c'est une infusion tardive bu ngi mel ni sa kaas bi nga sot ci kafe mhm. nii la France mel ba mu jël couleur il y a pas d'intrusion massive les soldes migratoires ne sont plus vers la France dañuy naxaate donc tey loolu moo am France gis nga boo wàccee Paris quatre heures du matin deux heures du matin aéroport bi ñëpp ay noir lañu policier bi noir la gendarme bi noir la ñëpp noir la donc France warut a mën a wax loolu France xam nga lu mu mën a xeex la le culte de la diversité parce que ce sont statut social. mais sénégalais bi mën na xeex loolu. mën na xeex tubaab bi. non dafa naan saaga leen bind un peu partout. la France dégage kenn warul saaga. ah mondialisation ñun bokk xam nga ku nekk man damay respecter ku nekk sa idéologie mhm. dans tabaxaat amul saaga mais on appelle une relecture des perspectives dañu woote une révolution socioculturelle mhm. épistémologique pour que doomu réew mi kat xam ni tey il faudra ouvrir de nouvelles perspectives xam nga da wax ni le les dirigeants euh, africains la mhm. suñ ñëwee rek dañu bàyyeeku loolu moo tax tabaxaat woote une rupture xam nga li tax l'aide au développement gis nga tey l'aide au développement est un instrument de politique internationale xaalis bi ñu leen di jox. dañ mm-hmm. leen di conditionné. Mm-hmm. looloo tax yi mais bien sûr. Mm-hmm. gisoo loolu moo tax ñoom ñëpp fa lañ leen najee ñun ñu retourné ni tey Afrique mooy continant bi am lépp ba ñëpp di fi tànkee mais Afrique moo gën a ñàkk moo gën a tumuranke mm. il faut ñu yeewu xam ne ñu ñoo mën a tabax réew mi xoolal cette jeunesse la Europe amul jeunesse ñu ngi génn ay africains mais les Nations Unies avaient fait un rapport en deux mille un leen si l'Europe veut maintenir son même ratio actif-inactif en deux mille cinquante Europe il lui faut accueillir européens yi war nañoo accueillir plus de cent soixante et un millions de migrants loolu la Allemagne comprendre. Mm-hmm. en deux mille seize bi crise bi commencé. Mm-hmm. l'Allemagne ubbi ay buntam. les dirigeants européens comme dëkk yu mel ni France parce que ñoom soxlawuñu migrants parce que ñoom dañ ko manqué wuñu. Mm-hmm. le taux de fécondité en Europe Allemagne euh, France la ëppee ak Irlande. Mmh. ce taux là est supérieur à mhm. est-ce que vous comprenez donc ñoom tey euh, ñu ne Angela Merkel expose l'Europe au terrorisme gisoo moo tax amaal gi am. l'islam et la migration mis au banc des accusés par une laïcité juridico-politique donc ñoom foofu la ñu nattee donc Allemagne comprendre loolu yeneen dëkk yi comprendre le besoin est conjoncturel et structurel loolu moo tax Adam Smith nee leen ni mhm. la migration est un facteur d'équilibre social économique la migration est un facteur de recomposition des sphères d'influence ñoom xam nañu loolu seulement dafa am naafeq la gestion est naafeq ñoom France la commencé muy dem la fay dominer boo xoolee tey dëkk yu bëri am nañu tey ay parti d'extrême droite mhm. kon tey Afrique moo war a yeewu xam ni man am naa jeunesse mhm. am naa ndox am naa am naa naaj. exactement l' agriculture doit être l' activité de relance du continent africain loolu la tabaxaat woote waat. kon mën nañu xaar France fal ku mel ni Éric Zemmour. non Éric Zemmour mënul nekk. mënul nekk euh, Éric Zemmour xam nga ab ab euh, comédien la rek. Mhm. Euh, bu ñu dugal ci kii bi. mais non la France ne va jamais élire Éric Zemmour loolu moom bu ko kenn xalaat seulement li mu wax nii waroon na mën a permettre tey africain ñu yeewu loolu la tabaxaat woote wat tey. des dirigeants de rupture pour que ñu ànd xam ni kat euh, nii l'aide au développement nii laneen ak laneen du doxal réew mi gis nga Sénégal su organiser sa diaspora ni ko tabaxaat buggee moo tax dans le programme de tabaxaat y aura une partie exclusivement réservée à la diaspora le retour l'équation de retour la notion de co-développement parce que diaspora bi ñoom ñoo xam lan mooy co-développement la notion de l'état de droit gisoo frustration bi am ci diaspora bi mm-hmm. ñu bëgg Sénégal changer parce que ñun bu ñu sañoon dëkk yooyu ni leen di diriger noonu la ñuy diriger si ñu xoolal Sénégal ñaata milliardaire la génne avec ce régime de l'alternance kenn ci ñoom donn ko mhm. kenn ci ñoom donn ko donc les gens injustement dañu jël lu réew mi gis nga ndóol bi gën a bëri foo romb ni ñaa ngi yalwaan mhm. nit ñi reeratuñu nit ñi lekkatuñu loolu la ñu bëgg ni ñun moo tax ñu wax ak waa diaspora bi parce que ñooñu xam nañu la notion de droit aujourd'hui il faudra mhm. euh, euh, il faudrait Euh, recenser toutes ces compétences yi nekk ci diaspora bi ñu ànd ak ñu nekk Sénégal ñu tabaxaat dans l'expertise et la justice sociale loolu moo manqué malheureusement dans la gestion de notre cher pays. voilà loolu la ñu woote. une deux minutes moo ñu dese euh, Boubacar Seye à l'Assemblée nationale lan moo fay nekk sa taxawaay. waaw xanaa la ma doon wax rek. Mhm. xam nga balaa nga naan naam ne fa. Mhm. léegi problématique yi ma posé nii yëpp mën naa ne nag ay propositions et des projets de loi. tey ñaata sénégalais dañuy indi ay propos proposition de loi des mm. projets de loi. li ñuy wax ñaata sénégalais la ñu rey mos ngaa dégg am. surtout voilà bëggoon naa la si laaj sànq. mais nous allons diligenter des des sénégalais yi faat yi ñuy faat dans des circonstances yoo xam ni dara leeru mm-hmm. mais tey war nañ ci mën a jàppale. loolu moo tax ma ni nañu def attention les quinze députés pièges la amul benn parti bu ñu ci jàppale. loolu moo tax horizon euh, man au niveau de tabaxat ma contourné man duggoon assemblée day yomb parce que parti yu bëri dañu ñëw ci man. ni ma ñëwal représenté mais man maa bañ loolu parce que loolu dama ko fi bañoon kon tey suñu góorgóorloo. est-ce que loolu gënul woon yomb si yow. nga nekk député mais loolu gën a yomb ci man ma mais le fait que de vouloir m'affirmer tànn fi gën a metti loolu mooy sax am naa lu may bañ. kon léegi Boubacar Seye am na xaalis parce que Boubacar Seye Horizon sans frontières amul xaalis. xam teg nga sa mouvement am nga xaalis yaa ngi politique. xam nga xaalis. waaw xam nga xaalis. Mm. moo gën a tuuti ci li yàlla di may. xaalis. waaw moo gën a tuuti ci li yàlla xam nga li ñu bëgg. non euh, Boubacar tontu ma rek temps bi jeex na. waa amin yàlla léegi Boubacar am na xaalis parce que mi ngi politique. ndey Kumba yàlla nañu am xaalis. waaw bay jàppale doomu aadama yi. Mm. yàlla ñu am doole ba. ku ñëw ci ñun sa aajo faj. loolu rek la ñuy ñaan kuy financé mouvement bi. waa diaspora yi wala. gisoo kuy jaay ay carte kuy jaay ay carte yow dañoo bëgg balaa nga fi génn nga jaay carte. Mm-hmm. Euh, waa rajo bi yëpp jënd carte. ku bëgg a jàppale horizon euh, tabaxaat mu ñëw tabaxaat. xam nga mm. ku am financement ak ay milliards. doo jaayee carte non mais jaay carte c'est tout à fait normal. foog ngeen jaay carte doole bi moo ñëwagul. waaw doole bi lañ bëgg. mais Boubacar am fitu samp ndëndam. ne man bokkuma ci benn parti. conviction la léegi Boubacar am na xaalis. mais gëm-gëm la moo tax ma ni la Amine yàlla nañu am loo xam ni. Mm-hmm. alors euh, di ci faj aajo doomu aadama yi parce que nit ñi son nañu. Mm-hmm. ñun loolu la ñuy ñaan yàlla gis nga mm-hmm. tabaxaat. ak lépp rek xam nga pour taxaw doomu aadama yi la pour jàppale leen pour taxaw Sénégal liggéey Sénégal moo tax luñ ci am rek ñu ngi ñaan yàlla mag ñi ma àndal bokk ko ak doomu aadama yi mhm. kon loolu nga ñuy nga ñuy kiyéen ni yàlla na ñëw fekk si ñu ba ñu ku am soxla ñëw ci yow ñëw ci ñun sa aajo faju ñu ànd nag tabaxaat réew mi ba nga xam ni kenn dootul tumuranke mhm. tabaxaat réew mi ba nga xam ni ku feebar faju tabaxaat réew mi ba nga xam ni on va lutter contre l'insuffisance alimentaire parce que mhm. tey pour doxal réew mi il faut ñun dundal mbay mi réew mi mën ñu rey mbay mi pour dundal réew mi pour tabaxaat réew mi fexe ba rétablir la dignité aux pêcheurs aux artisanats aux marchands ambulants mag ñi nga xam ni tey ku ci jël retraite sa kër tas ñu taxaw leen les personnes handicapées ñu exclure leen encore ñu inclure leen dans la société ñi jàng arabe ñu ñu dugal leen dans le système nu parlons Euh, comment on appelle euh, euh, euh, euh, du système des daara bu ñu war a inclure nous appelons à l'éveil des foi et des consciences pour que Sénégal gi ku nekk am ci place au soleil ba nga xam ni tumuranke du am wala li fi xew tey da ngay lekk ba suur jël li si des denc ni kaneen du reer. Mm. wala ñu jox la réew mi am yaakaar ci yow nga jël réew mi ànd ak ña nga àndal. Ah. ñu lay nax nga nga teg sa bopp buur ku la neex tëj. ku la neex bàyyi. aywa ah, Macky Sall ngay waxal Boubacar. non mais non kan moo def la ku dul Macky Sall man kay la may wax man jël dama amul lu may ragal. Mm. Macky su su doxalee nu muy doxee réew mi tabaxaat du am. kon temps bi jeex na Boubacar ñu bàyyi la nga tàggatoo ak auditeurs yi. waa xanaa di la di la sant di la gërëm ci invitation bi. Mhm. Euh, di wax waa Sénégal ak waa diaspora bi tey am na mouvement bu bees euh, bu tuddee tabaxaat Sénégal qui pour man est le renouveau démocratique. Mhm. pour ñu tabax réew mi pour ñu diagnostiquer ensemble ma ci woo ñëpp ma ci woo ñëpp ñu ànd liggéey Sénégal dans l'expertise la justice sociale gëm yàlla ak ragal yàlla pour que sénégalkat Euh, dans dix ans xale yi dootuñ dugg gaal di dem pour que Sénégal ku feebar faju mm. pour que Sénégal jàng bi mën a dox pour que Sénégal ku mar naan ñun loolu la ñuy ñaan di ci woo ñëpp nag sans exception ku ci gis sa bopp daal euh, ñu ngi lay xaar ci tabaxat pour ñun ñëpp ñu ànd liggéey suñu réew. voilà merci beaucoup Boubacar Seye ñu ngi koy remercier bu baax a baax Boubacar Seye nekk euh, président bu Horizon Sans Frontières wante tamit nekk président bu mouvement euh, tabaxaat Sénégal ak waa diaspora ñu koy remercier ci disponibilité am di leen remercier yéen suñu auditeurs yi ànd ak ñun chaque samedi de 10h à 11h di remercier Mamadou Diaw Diallo euh, bi nekkoon ci cabine technique bi kon ba samedi prochain 10h jàpp 11h ci beneen émission beneen thème ak beneen invité ak Ndeye Comba Moreau jaa jëf.